C3S machine ak i outillage yu baax am na ay xeetu verre bu ngeen soxla ay plexiglas PVC ngir seen création wala décoration am na ay panneau composite alucobond ak ay profilé mur rideau ngir yokk taaru seeni façade bu dee décoration c 3 dina leen defaral seeni bureau wala seeni kër ci noo leen ko bëggee ak i mobilier inox verre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 mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. ñu ngi jox kàddu gi jëwriñ waaye jëwriñ sa mel saa wax na dinaa la wax ni ñoom ñi joxe bii rek xool ko tey daal bi Sëriñ Tuubaa wala ngay ci bokk ci lislaam te jëmul ci nee na sa xol set na kon nee jëmli yow itam ñu ngi lay set ñu ngi lay gërëm ñu déglu ko mu sànni sëñ bi ay kaddu kaddu cant koo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem di ko sant sëriñ bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim Khadimu Rasul di jël cant boobu di ko teg ci loxoy suñu sëriñ bi suñu mu tegal ñu ko ci njabootu sëriñ Touba géer ñi ne ci kanam ginnaawam ak mbokk taalibe yëpp xam naa ni bu waxtu wi tollu woon fii doon na am ay leeral yu yu ñuy mën a bu waxtu wi tolluwul dina am ay leeral yu bari yu ñu mën a leeral ci ki nga xam ni moom la ñuy jagleel bés bi muy suñu yaakaar di a Cheikh Sadio Mbacké yal na yàlla yokk ay ngëneelam yokk ay leeram Cheikh Abdoul Khadr ñoo ngi lay nuyu di la dalal di la jox sa wàccuwaay di la jox ab nuyoo nga tegal ñu ko ci loxoom suñu sëriñ bu baax muy ay Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ni moo nekk ci boppu njabootu Serigne Saliou toog toogaayu Serigne Saliou bi te defarul toogaayam nii ñu ko xamee ci nekku Serigne bi moom lañu ko xamee bi ñu noppee ci Serigne bi ndax moom nii ñu ko waxee léegi benn yitte rek la am. muy diine benn yitte rek la am muy lislaam benn yitte rek la am muy liggéeyal Serigne Saliou Mbacké ñoo ngi koy nuyoo di ko siyaare di ñaan yàlla yàlla ko yàlla defal ak bëggam di ko nuyu di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi wéral ko bii sëriñ bi jëlee bés bii ni bés bi njëkk bii dañ koy yagaleen Serigne Saliou Mbacké ñu dem ma dem fa yëgal ko ko la li ma woon bu ma manoon maay ñëw waaye dinaa yebale ñoo xam ne ñii ñooy man bi délégation bi ñëwee nga jiite ko xam nañu yaay sëriñ Cheikh yaay sëriñ Saliou yaay njabootu sëriñ Saliou yépp ñoo ngi lay dalal jàmm waaye di la wax ni liggéey bii liggéey lañ ko kenn ku la ëpp sab liggéey la liggéeyub sëriñ Cheikh la liggéeyub sëriñ Mountakha liggéeyu njabootu Serigne Touba gi bi ñu tàmbalee liggéey bi ca pàkk bu njëkk ba Serigne Saliou moo ko rëddoon ba ñu jëkkee am plan ñu di ko xool ba plan bi méngoowul ak li nga xam ne lii moo méngoo ak juma ci la Serigne Saliou defar plan bii Maysa Touré day architecte waaye plan bii Serigne Saliou Mbacké moo ko defar. defar ko mu nekk loo xam ne xajul ca pàkk bu njëkk ba sax nekkate booba nëbbal nañu pàkk bii ba Cheikh Mouhamadou Lamine na ñëw ñu jox ñu pàkk bii moo waaxu ba dugg fii ni ma barab baa ngi te fekk booba bari na ndox bari na ñu tiit dafa ne barab bee da koy gënal waaye mu dugg taxaw ne barab bi fii la kon moom réeroowul woon ak suñu yaakaar jooju muy Cheikh Saliou Mbacké bu ñu ko defaree nag ci kàttanu suñu borom yàlla jàppale ndax ñun mënuñu dara xamuñu dara amuñu kàttan amuñu doole amuñu xam-xam sëriñ bee ñu jàppale di ñu tettee di ñu dimbali ba liy taxaw ci ndimbalal ñu jël bés bu jëkk bi tudde ko ak Cheikh Saliou Mbacké jaadu ndax jumaa ji sëriñ Saliou ci jëkk moo ci boo demee Mbacké ñoo ngi jéggalu sax di la yóbbante waaye boo demee nga ni Cheikh Serigne Cheikh taalibe yépp bëgg nañu te bu taalibe yi bëggee Serigne Serigne Serigne Mountakha bëgg na Cheikh Mouhamadul Bachir bëgg na njabootu Serigne Touba gépp bëgg na l'islam bi bëgg na léegi laa koy wax ci biir saal ba ni leen li tax ñu gëm ni yóbbante bii lu ñor Serigne Cheikh la Serigne Cheikh la tegul fenn njabootam la teewul fenn yóbbanteem la teewul fenn kon gëm nañu ni fonk na ko te bu amul woon ni teq-teq mooy ñëwul boppam waaye ñëw na ndaxte sëñ Abdou Khadre mii fu mu ne fa la sëriñ Saliou ne fa la sëriñ Cheikh nekk ak njabootu sëriñ Touba yépp di gërëm comité scientifique bi nga xam ni ba ñu tàmbalee ba tey amuñu guddi amuñu bëccëg ñooy maître d'œuvre liggéey bi di gërëm tamit président de la république Macky Sall mi yebal délégation bii nga xam ne ay ministre ñoo ko jiite Makhtar Ba muy jiite ko wala demee ngeen santal ñu ko gërëmal ñu ko liggéey bi ba ñu tàmbalee moom ba léegi lu mu ci war a jàpp jàpp na bi ñu président Abdoulaye Wade joxee terrain bii nga xam ne bii lii mënuñu ko woon a ñàkk bi ñu koy liggéey ba di ko liggéey loxoom jógu ci ndimbalam jógu ci kon ñoo ngi leen di gërëm yéen di leen sant di leen wax ni waxtu wey moo ñu tënk te sëriñ bi dafa war a dellu boo demee daal Mbàkke nee ko bëgg nañu te it nag wax dëgg yàlla li may wax ci sama biir xol laa ko nugute mën nañoo jàpp ni ubbite jumaa jeeg julli géeg lépp mat na ndax sëriñ Saaliwu lu mu jëkk lu mu jëkk lépp mat na duñ ko fàtte mukk ci wax sax ndax xaju fi te ko nit mu mu mu deme neneen waaye daal maa ngi lay xamal ni kenn du ko fàtte. kenn du ko fàtte. sëñ Saliou Mbacke kenn du ko fàtte waaye nag noonu la mën a deme mooy xaatu moom Serigne Touba Serigne Touba ay bagage yu bari la indi ñu koy yenn di ko yenn di ko yenn di ko dajale ba mu dajaloo ci moom garaat ba yonent bi amoon ñu koy wax na nabi moo nekk ci Serigne Saliou mooy xaatu moom Serigne Touba moo tax noonu rek la mën a nag fekkee na ko fàtte maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax jël asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala